Mesela nem iniyor. Ne? ginnaaw bi mu la nuyoo di la siyaare di la sargal di la indil nuyoo président de la république ne moom kat moom délégation bi mu àndal bépp ne né, ñu yebal ko fii mu ñëw nuyu la yow Serigne Sidi nee nuyoo bi nag nuyoo Cheikh Sidil Maxtaar xalif général kullu murid nga teg ko ci sa loxo nga teg ko ci sa loxo mag ju baax da xalif général kullu murid nee mu ngi lay indi nuyoo jullit yëpp ak seen siyaar ci weeru koor wu tedd wii ne président de la république dina nuyu tey ci première bis bii di ajjuma dajeeg weeru koor ñu yóbbu ci jumaa ji sar mas gi sarak ju baax ji def ko bi sëriñ Seexum sëñ Saaliw ne loolu firnde yu la te leer na lépp luñ fi ñaan yàlla sama saa borom dam leen ko may tey ne comme nag ni ko daa aajoo def rek ñaanal réew mi jàmm ñaanal ñëpp jàmm nee ñaan ci nawet bii ñu dëngal yàlla def ci jàmm nee wax bi kat mënul gudd nee ci waxtu ajuma la ñu ne ci weeru koor nee nuyoo ak ci président rek ak julli ci réew mi yëpp nee loolu moo tax tey ñu ñëw fi asalaamaaleykum sëñ mi ngi lay sant bi ngi lay gërëm